السلام عليكم بكو انترنت ني نغي نوي نيوب دي سيار نيوب دي ام بكت دالال لن سي اميسيون فاتيا جانغرو دي دالال تاي سونو بابا شيخ مصطفى جاي بايكو مو نيو عليكم السلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله جل جلاله وعز كماله سنتي الله جلّي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي وح السلام عليكم دي زيار نيب دي بالو حق نيب دي جيغلو نيب تاي نيانال نيب دي وح ني محمد البصير وعليكم السلام ورحمه الله جيرجيف سي مصطفى جي سي خمنا بلا نيوي كون دا نيي واخ سي نوفل بي في واتي سي سي باب مالك سي مو وي جي سونو برام مو بيت ني بيو بري mu mel ni dafa doonoon tamit jëmm joo xam ne li ñuy dinañ koy gis lu bari waaye xamuñ ci moom lu bëri. Mm-hmm. ñu bëggoon ngeen defal ñu ci moom ay seede. waaw xanaa day di jaale àdduna bépp di jaale xalifa général de Tidjani di jaare xalifa yi ne ci réew mi yépp ba ci aduna bi ndax serigne pam malik ku ci ne man nga ko jaale sa morom ci yaatalam ci mbaxam ci bëgg boole lepp doon ben ci rafetalam ci ak ko xamni amul frontière ci fenn di ak ñepp di dikkelante ak ñepp tay waxante ak ak di deglu ñepp yalla defalon ko lolu muy ciatu serigne babakër si mu doon sax koo xam ni yeex nan ko xam ci saayir ci feesam ndax orma ju mu joxoon sëriñ Cheikh ak bëgg gu mu bëggoon sëriñ seex ak dénkaane goo xam ni dénkoon nan ko ko sëriñ Cheikh ak gëm gu mu gëmoon Serigne seex ak wóolu gu mu wóolu woon Serigne Cheikh ndax nit da nga bok ak mom ba pare nawlok mom ba do ko déglu nit da nga bok ak mom ba pare nonok mom waye nit da nga bok ak mom ba pare nawloko ba paré dalay doy sëriñ doy le lepp ba sax dañu koy jaawale am ñu bare jàppoon nanu sax ni doomi sëriñ cheikh la kon orma joju reyna na mu doon nit ko xamni nit ku dégg la macha allah fa tabarakallah nit ku xam la nit la koo xam ni euh, fa mu bokk sax euh, euh, du du du danga koy xool rek xam ko ci moom waaw mu doon caatu Serigne Babacar Sy nu wet nag ndaxte demam dafa bette ndax kenn séenoowul ci moom faatu ci heure bi doonte faatu ci ñépp war nga ko seenoo seen bopp mu doon koo xam ni defar na lu bare ci lu fés rek la nu yëg waaye defar na ci mbokk lu bare fekk na lu ñaaw ba tàyyi mu rafetal ko fekk na loo xam ni nit dana ne ci yoon mu encouragé la ba nga man yegg feneen koo koy sëriñ Pam Malick di ko jaale ak di ko ñaanal nag di ko jaale mbokk yépp ak di ko ñaanal yàlla yokk ay leeram yërmande yàlla tàbbi ci kawam ay yooni yooni yoon ba mu tasanteeg mag ñu baax ñi te it day xam naa ni du tasanteeg mag ñi rus ndax yam na fi nu ko yamloo woon mel na it ni mu waroon a mel dox na it li mu waroon dox te loolu lu rëy la waaw daanaka sax bi fi sëriñ Abdou al amin newee daanaka sax moom toujours ci gannaaw rek lay bëgg di nekk daanaka bëggul fees bëggul dara waaye lépp ci orma rek ni mag ñey mag ñi rek la tegoon foofu kon bi mu demee sax lañu comprendre kan mooy sëriñ Pap Malick Si yal na ko yàlla yërëm taxari ko àjjana di ko jaale nag ëhlu Tiwaawan Tuuba Njaasaan Laayin Kuntiyu Canaba ëhlu yépp ba ci sax ci jàngu bi ndax amoon nag ñoom ay ay ay ay jëflante yoo xam ni lépp luy rafetal rek ci jàmbu yàlla bind rek sëñ Pam Malick na ci wax na ci ngir bëgg ni xamal ni àdduna bi yàlla ñépp la fi wàcce waaye rafetal rek am solo sa Mamadou Bachir bi ñu xëyee tamit dañu gis xalifu Thiénaba waaw moom it uh, wuy ji suñu waaw waaw mu jamono metti jamono ji nu toll su gisee nit kuy tooñ sax damay tiit jamono ji nu toll sunu comprendre yi dëgg sa bët bi nga koy sànni ci kaw asamaan si te naan kiis sax waxuma soo xamee dara de soo xamul dara sax da nga am melokan boy gis bo xam ni da ngay xam ni bi léegi nag masu fi jóg waaye ci tolluwaay ci ni mu demee xoolal yiy dale sëriñ boobu a ni waxati rekk di bàkk yàlla ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla defati lu ko neex yàlla nu moom ñun ñépp bu ko neexoon yóbbu na ñun ñépp ndax alal ji alalam la li fi ne lépp moo ko moom kon ñi ngi jaale ñi ngi massawu ñi ngi dolliwaat di muñ waaye ñi ngi dëkke ñaan yàlla Amadou Bachir di wax ni nag bu nu dañ mukk ci jéggalu yàlla Amadou bashir nee naa la ñu baax ñi du nu fekke yenn yu bon yi du nu ko fekkee waaw du nu ko fekkee ñi ngi dugg ci si nawet nanu ñaan yàlla wala ñaanati yàlla xool sarax yi xool istixfaar yi xool nan la ñuy fexe ba kii man daal loolu laa gën a gis yii di xew léegi xëccoonte geeg nootante geeg dóorante geeg bu kenn feebaree ni lay siiwal ah man yooyu daal d'accorduma ci ci yu bare nag ndax ba ci sax yonent yàlla Muhammad du wax luy dañ duma dañ di ko wax yonent bi nee na dee leen yéenante jàmm waaw waaw dee leen yéenante jàmm dee leen waxante jàmm dee leen riwante jàmm ba sax léeg-léeg nga dégg rumeur soxna boroom réew mi dafa feebar dafa war a feebar nit la comme ñépp dafa war di feebar ak lu ko mën a dal Bude amna, dafa war di feebar su amul dafa war di feebar ndax jaamu yalla la nit la comme nit te amul lu ko fi dal ta dalul ñenen <laughs> xaw de nga wax jëm dit lu ko fi dal rek am ñum fi dal kun li deug ci yalla moy la rek bu amé warna febar, su amulit warna febar, ndax ñun ñepp dañuy feebar dañuy dund dañuy dé kon ku waaw ku mën feebar uh-huh. nanu la ñaanal yàlla bu nu la saboote bu nu ko yóbbu fenn bu nu ko nàngam sàngam déedéet nanu ñaanal rek ñépp yàlla ndax yonentu yàlla muhammad moo ni dee leen yéenante jàmm dee leen waxante jàmm ndax lu ngeen waxit ku ci ne lu fi waaye reewee nit baa nga yéene ko nit sa kaw lay jëmaat gëmal ni balaa ngay dee dana ñëwaat sa kaw kon foofu danu fa war a teey ñun ñépp nag kenn tegewul yàllaay tege ni ku bàyyi xel loolu doo tuumaal nit doo xas nit doo wax nit lu ñaaw doo bëgg loo yàq nit rekk tax sax ba ngay wax ci nit loo xam ni leeru la bu amee sax balaa nga koy wax danga ko war seetaat rawatina su amul wala nu manti demee waxuma sax ci lii ma mujje wax waaye ci lépp ndax nit ñi léegi toll nañu foo xam ni euh, danoo toll foo xam ni daal seeni façon ak seeni jëfin yàlla taxatul daal seytaan yi daal dafa fees ci ñoom del la man dama jàpp ni tey su ma toogee bay waxtaan ci lu manti doon xale bu ndaw bi may am juróom-ñaari at sax dana ci gis boppam ci ëllëgam ci réew mi ni muy doxe ci li nu ñàkk ci tawat yi fi am di di loo xam ni ci sunu borom la jóge yàlla lan lan lay jéggaloo waaye du nu continuer rek di def loo xam ni bis bu ne yàlla dinu wanaat boppam man daal foofu lay waxe saa su ne moo tax sang boobu nelaw ñi ngi koy ñaanal yàlla waaye di wax ni nit ñi nanu delluwaat ci yàlla jéggaluwaat yàlla te xam ni kat ni yàlla lu ko neex def te mbir mi aajowul ku baax ki ak ku bon ki yalla buy jël lepp lay jël kilifa yi nak ñi ngi dem rek wit nanu metti na waye ñi ngi ñaan yalla rek yalla sutural nu muhammadul basir ba bu ni demit nanu fekk ci lu bax te lu ni waxit ci nit yalla nanu ko xam ta mo doon lu rafet ya lo rek la ñuy wax muhammadul Basir, ya moo tax ñi massaw ma ngi ah, jégalu dañuy wax naan jikko yoy nonu ngeen di wax yëpp na bokku na ci li li ñu sonal ci jamono ji mm-hmm. euh, jóge na lu bëri ci wàllu nasaraan yeeg influence bu ñu mën a def si ñun diggante internet beeg mm-hmm. liberté yeeg mm-hmm. taxawaayu soxna yeeg mel noonu mel ni lu am doole la ci àdduna tey naka la ci nit mën a muccee ci ci ne fi ne nii waa xam nga Mouhamadul Bachir àdduna ku nekk foo yegg yaa fa bëgg yeggale sa bopp nit ku nekk man nga soxla internet toddu tax ba nga war a jëfandikoo yenn yi nit ku nekk war nga mën dugg ci internet def fa la nga fay def ndax dafa bokk léegi ci àdduna waaye bokkatul nii nu koy doxalee looy weere sa moroomi gor looy yàqe gor loo naan diw xamuma walla sax nga toog ci internet di laaj diw naan ko ndax nàngam nga yooyu du yufi nit ndaxte dafa am yoo xam ni même bu dee nit ki da ko def ngir yàqante walla mbirum seytaani la ci jubal yow nga xam sa boppa xam yow la kan internet ubbiwul gémmiñu kenn <laughs> bësul loxoy kenn toogul ci xelum kenn foo ca dugg rek yaa fa dugal sa bopp baa nu dugal la fa kese moo fi am <laughs> kon dama la ci jox firnde sunu liggéey yi nuy liggéey am na kuy topp ci internet bi di nu yàq di nu waxal lu dul dëgg ngir lan a bëgg na lu bon ci ñun tam manu ko am <laughs> mu ni sëñ bi du neexle muy woti turam nan mariama ba la tuddu te tuddul mariama ba dans ce micro dang koy gis ñaari muy commenté fep fu ngeen mënti def vidéo dafa dem ut wax yu mu teg seen dana commenté nak ba loxom ba loxom karampa ba mu dag ba mu dam waye yalla sutural na ma jappana ko ci sama loxo bi ndaw ci santul ba tuddul mariama ah lola sante maa ngeeg numéro téléphone am maa ngeeg ay photom sëñ da ngeen def bu ak lool waw dama ko woral juróom-ñaari yalla ta daf ma jaral lu lu ne nak dama ko woral ñaari yalla nit di ma woon nan ma am ndax da nga xam diw man ko dama ko xam man koku déranger wuma ma ndax bu dee dañu ko yoni du tax ba wax ma nopi ndax yoon wi ma nek du waxa may déranger du tuumaa may déranger du ñaawal sama dera may ndax yàlla pentiir na ma ni ma pentiir def na ci man li muy def ci man xëy na nag na ma mel day wër ay mbokkam te fekk ko ci ñoom boo muy liggéey loolu bon du ma ko def ah? boo ma naan ma rayal ma nit wala génneel muy ñaa kii ci réew mi dama ko dul def duma ko def da ngeen mës a jëflante waaw waaw du ko def gëstu naa ko ba xam kii la kan duma ko def <laughs> duma ko def de dossier laa yor ci sama loxo duma ko def moom nag la tax mu changé tur changé sant ah looy def te buy dëgg danga naan dang mu leer na xam ni nëbbatuwoo lépp dëgg la waaye looy changer tour di changer sant fii lu fi manul xam loo fi manul xam dafa fekk ni dadul dëgg yàlla gëmmul nelawut te billaahi wallahi wa tallaahi ameelu ma fi kenn àq moo tax ku ma tooñ su la jéggalul da ko gis maa ko wër ba gisal ko sama bopp ma jël sama téléphone bii woo ko ni ko duma la sunguf duma la ren duma la xaatim yaa ngi sama kanam yàlla laa lay dénk te billaahi wallahi wa tallahi bëgguma woon di ci def émission yàgg naa dégg ni naan ma am na kuy ne ci internet bi naan Mariama Ba la tudd ak Fatou Ba waxul dëgg tuddul Mariama santul Ba lu leer laa la wax nag jël naa profilu photom jël whatsapp am photo ko ba mu leer ma ma jël sama téléphone wook ba ma koy woo sama njaboot a ngi toog ma wax ak mom wax ju leer nañ ne mi di man ko suma la jappul won jarul sax may doon julit jurom ñaari fan la ko woral te yalla xam na ne ni billahi wallahi watallahi tallahi suma ko jegalul do am jamm ci aduna waaye nak yalla dafa def mom même bu commenter da ngay gis yenen internet yi ñooy waaw du waw xam nga lan motax c'est mohamadul bachir mbiram du ndax xam nga lan motax dama doon liggey ci rojo jóge fa fi ma jóge am nañu mu neexul kon lu man ñooñu laa doon seenu am na dëgg yu may wax am na ñu mu arrangé wul <laughs> dérangé na leen bu nu sañoon tey jii daanu ma saaga baa nu ut ku leen ku saaga waaye nag man man yàlla fees ci man dell man loolu daf ma dérangé man léeg-léeg damay toog fii naa nit dana toog ba ci yàgg sax ni ma sëñ bi da ngay dóor rek daf may dama ciy bég ndax am na am na loo xam ni damay tooñ yàlla man tooñ yàlla gi il faut nit di ma tooñ mooy tax ba tooñ euh, sama bàkkaar boobu dañ am na loo xam ni balaa ma koy am si àdduna ci xéewal ak sant yàlla il faut nit waxal ma lu ni weng baa mu def ma lu ni weng kon lu may déranger man yàllaa fees ci man sëñ Mahamadul Basir bu la téeméer nee est-ce kenn ni la accam lu lay metti xanaa santoo yàlla yow danga am ay millions yow nga réer le fukki junni loo koy jàmbat ci waxin loo ciy jàmbat <laughs> waaw fukk yu baax na tax ba benn moo bon am xëy na nag lu bon dafa metti ndax imaam bi xutba ci jàkka ji mën nay xutba téeméeri aljuma kenn du wax la mu xutba ndax rafet ga waaye tey mën na juum rekk wax jenn moo bu ñaaw ne no ah tey la imaam ba wax ah imam diw nangam sangam kon yooyu mbiru seytaane la waaye nee naa la nanu nit ñi seen nii rek billahi duñu genre yuy toog ci ci internet rek doon ordinaire nii jegewuñ sax ordinaire maa ko gënoon man yàqaat maa ko gënoon man def lu ni weng te xam ki koy def lan la xooluma ci moom xooluma ci sama bopp sama diggante ak yàlla laay xool te billahi wallahi watallahi bu ma juddoo sama ndey ba léegi nit maasuma tooñ ba am ci ndam billahi ndax duma kat waaw nit masuma tooñ ba mu am ci ndam nee naa la daal yii moom day gêné ñi may waxal dérangé naa leen torop yenn sëriñ si accepté wu nu yenn dëgg yi arrangé wu leen ñenn ñi nag lanu may sant laa dul def te nu xam ne génnee nañ ko seen gémmiñ ba pare mënatul dem nu bëgg yeneen i mbir te du demee noonu. sëñ bi mel ni kii daf leen doon liggéey looloo xam ne lu baaxut la. waa non moom xam na man xam naa. xam na la tax ma mën a toog fii di wax li may wax xam naa ko na dëkk bind nag. billaahi wallahi watallahi loxoom yooyu dana mujj ni lot. billahi wallahi wa taala xam nga lan moma jaaxalun ñak ko baña xam nay binda rek <laughs> waaw te neewon na la fi benn bis kuy tok ci internet di saga bul yaakar ñepp mom ngay saga de bul ko yaakar de mamadou basir nonuy tok bis bu ne nit ni ma seigne mustapha nangam sangam maniko bo beugé xam man numu bindo numa mel setanal sama émission yépp benn jikko laa yor benn jëmma laa yor benn façon laa yor soo bëggee xam kuy sëñ Moustapha nag del xool ci jiwam bii dox lu ma waay def ci àddun ndax man defuma kenn lenn lu bon ci àddun xalaatuma ko waaye la ma naqadi mooy nit ki am jot hmm? waaye sax nit bu la tooñoon sax ba mu jaral la lii sax ëpp na rawatina nga toog naan dafa am mystique moo tax bu demee si yoon masuma dem ci yoon bay am mystique nag mu leer ci boppi nit ñi xam nga man kan mooy sama kii allahu subhanahu wa taala nit nag tooñu ma ba am ci ndam waaw moom moomu naan mariama la tuddul mariama santul ba sama turu jabar lay jël di ko sàkketoo benn ñaareel bi ci tegu mooy dossieram sama loxo benn ñetteel ba ca tegu loola sant santul ba li ma wax dafa leer numéro téléphone am ngi si kon nag li ma wax lu leer la te moom leer na ko ndaxte jokkoo nanu te yàgg naa koy dégg di ko topp nag ay weer <laughs> pour xam ka de man duma dégg ni naan nangam rek ma koy de su mamadul basir billahi wallahi dama ragal ci sama bopp ba ñemewuma def nit lenn li ndax man xam ni su ma yéenee nit ñi jàmm naa ko am waaye su ma yéenee nit ñi safaan dina ñëwaat sama kaw waaye it noonu lay deme ci Baltengs. waaye moom li mu def sax yoon da koy tere de waa yoon da koy tere nee naa la Bachir kii yàq na ma te yàqoogu ma de wala jéem na ma yàq te yàqoogu ma man nee naa la mën naa ko yàq ba mu yàqtoo waaye duma ko def du man duma moom bokkunu xaw ma dégg nga wax jëm mën naa ko bal mën naa ko teg lu dis lu métti waaw dem ak moom ci yoon moo jaral ma lu ne billahi du ma ko def yàlla xam ni ni billahi yàlla xam na ni su ma ko toppee noo dis dëgg dana xam ni ni tooñ du dëgg mi ngi fi maa ngi fi nag man man man man to eh, toppewu ma dara pour muy leer rek mooy li ma bëggoon xam te yàlla fay ma ko rek mooy ma xam kan la <laughs> waaw waaw ma xam kan la te yàlla suturaal na ma nee naa la tuddul Mariama santul ba ndaw si loola sant tuddul Mariama santul ba loola sant def katu lu bon la nag voilà yam leneen li amul solo <laughs> waaw waaw voilà <laughs> waaw waaw kooku. xam mhm. ah, ne mën nañ ko sax jàll. waaw sëñ ah. euh, balaa ñuy pare. Uh-huh. ñu ngi jégalu client yaa ngi toog ak yëpp. waaw toog di xaar. Mhm. mais dañ bëggoon ñu am tuuti leeral la ci benn mbir. waaw bu xew fan yi ak euh, kenn ku turam ci dëkk bi. waaw ci wàllum yàq biir. waaw ñu bëggoon xam sëñ bi loolu. diine lu ci àtte dëgg-dëgg ndax am na fu ko diine maye wala nu mu demee parce que fan yi sax dañuy dégg ci dëkk bi. Mhm. ay waxtaan yu jëm ci wàll woowu. Mhm. maanaam di ko permettre ci wàll woo xam ne ci kaw yoonu kër docteur lañ koy jaaree. Mhm. donc mais day fekk ne ñu ne dafa. seqoon ak papaam. wala yu mhm. mel noonu. Mhm. maanaam situation yoo xam ne daal. Mhm. mën nañ ko koo nangul. ñu bëggoon xam taxawaay diine ci ci loolu. waaw Mouhamadul Basir diine da ngay dem ni ko. sag at damay am doom. mu ne yàllaa la ko teg. yàqloowu la. yéegaloowu la. ajloowu la. diine man la nangul ni. dangay am doom waaye. li ngay dund ci metit mën na yóbbu sa ruugi gi boobaa mu mën a accepter la sax ne la ko noppalul ci nii baa ci ne ba léegi waxagul waxu yàq de doom ji ne ci yoon sax ci sëy nit diine mot mayu ko autorisé wu yàq ko rawatina lu dul ci yoon ndax yàlla dafa ni laa taqrabu zina <laughs> xam nga bu leen laal bu ngeen jege moom duggagul sax ba naan def leen ak yàq leen. dëgg la diine dafa dàq loolu dafa ñaawlu loolu waaw. ndog daal bu amee ah. nangu ka te nangul te moytu ndax kat gàccey ëddina mm-hmm. ak gàccey àllaaxira xamoo gu ci ne. gàccee addina mënees na ko defar gàccee alaaxira nag cooki fee la te bu nit ñi bàyyi xel yaakaar ni li ñuy def dañu koy def rek suñ ci yeggalee yeggal nan ci ndax nit ki yàq biir su ci faatoo fu mu jëm te pourtant am na ñu ko deewaale am na ñoo xam ni ci defoon loola ca la nu génne àdduna seeni mbokk laaj nañ leen ba sonn waaye waxunu ñenn ñi dañ koy def ba pare tëdd feebar am ñoo xam ne ñu ngi koy sooxaale ba léegi kon diine masul d'accord ci loolu te du ci d'accord ndax diine am palaanik sax d'accordu ci boo demoon ba di ko def day fekk mu doon loo xam ni sa wér di yaram gi sa ruugeen ciy bëgg a xaj ninu la kat manes na ko doxale nii bokkul nag nanu jaar goos jaar droite ba am lu xew loola moom diine waxuma la sax dàq waaye bu doon indi àtte dana indi àtte bi yàq indim àtte lan moo kan moo leen jox droit ba ngeen ànd indim àtte sax yeneen ak yeneen kon day diis gan na sax <laughs> kon bu nu bu nu ko tegee rek ci yàq bi ah. danu naan nàngam moo tax daal li wér wóor mooy yal na yàlla dimmali ba musal nu ci ay ak ay gum manti doon ndax Seex Muhammadul Bachir kilifa day weex dunq kilifa day moytu kilifa day bàyyi xel man mii sax de lee léeg nit ma sëñ bi invité nan la béréb sàngam ma ni leen ñemewu ma fa dem nit ma lu tax ma ni leen xëy na kenn xamu leen te dan maa xam te am na noon boo xam ne su ma ko fa fekkee lay soxla ja mooy dana ma tàyyi tàyyee foto ma foto ma suba mu ni sëñ bi mooy waxe fii te gis ngeen ko fa ngeen ko seen kon loolu des na ko bàyyi xel jàmbaar nag amu fi sunu borom dimbali rekk fi am waaye nag kilifa moom te bëgg di wax dëgg foo toll bëgg naan jaar leen góos kooku day am ay point yu bare yoo xam ni moo lay mën a dimbali waaw waaw moo lay mën a dimbali ndax kat loo bu dee tey soo waxee ñépp ni eskay am na yoo xam ni bu la ko naree jagal yàlla autorisé na la ni war nga amé ay soxné soxna takal ay soxné soxna mo gën ni lay dégg ci yenn yaqum do yaqum bir yalla d'accordu ci mukk ci aduna <laughs> ok mamadou bashir waaw sante yalla xana gërëmaat yalla tay balu ak sax bu ni nu waxé waru nu ko waxé mamadou bashir di ñaanal ñepp jamm li nu am ci ay soppé kenn xamul nu mu tollu di ñaanal sama dom ju baax joo xam ni nee naa la sax ni Mohamadou euh, Bachir man nit ku war sant yàlla la waa joo xam ni sama doom la ndax nee na maay bàyyam oto buy jar ñeen fukki million la ma may billahi wallahi wa tallahi ñeen fukki million la ma may bañ a sax publicité mooy tax may waxe nii waaye war naa ko wax ranza la ma may bu cher lool moom xam na li may wax waaw yàlla na ko yàlla defal jàmm waaw waaw sëñ boobu jaañ maa ngi koy ñaanal yàlla sutura di ko ñaanal yàlla ndam di ko ñaanal yàlla tawfiix Mouhamadul Basir lii ma yàlla di fayee kon nit ki toog di ma wax lenn lu bon dana tax loolu du lim ma jël du lim ma defal ndax defal na ma lu ne waaye waaye euh, euh, dafa am loo xam ni na lay tax muñ yenn yi <laughs> man dara dérangé wu gis nga fi toll man dama jàpp ni nit ki nga xam ne xool nga sëñ Moustapha rek nangu woo la ko yàlla may rek moo lay sa kookoo sonn waaye man day ñépp laay ñaanal tawfiix di ñaanal ndam di ñaanal sutura lii su ma ko waxul woon maa ngi denc sama xol lu ma arrangé wut yal na ko yàlla defal jàmm bëggul ma wax ko fenn ci àdduna waaye dama ko mënul toogaale mënuma jaar ci turam waaye sañ naa jaar ci sant bi cof ko xam na li may wax ndax benn émission du ko raw yal na ko yàlla suturaal ci société am suturaal ko ci lu ne ci barke Seyduna Muhammad di ñaanal soppe yi nag bare lool di teewlu di dinu bàyyi xel waaye di la ñaanal ci sonn gi ngay sonn ci jaam yi ngir nu jot sëriñ Moustapha ngir dégg sëriñ Moustapha ngir man seetaan sëriñ Moustapha ak ngir ñaanal sëriñ Moustapha ndax lépp yàlla nga ko dogal ci seeni moyens yi mu leen dénk te yàlla na yàlla defa leen ci barke ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sëriñ. ndeysaan.